jërë ngeen jëf bu njab yàggee nga war feeñ document médical bu Ousmane Sonko bi ñu fi siiwaloon enquête ba ñu cey def l'observateur nee nañu am nañu ca daanoogum bil yéene kay bi waa di division investigation criminelle teg nañu loxo ñaari garde pénitentiaire kenn ki Idrissa Sow la tudd dip inspecteur de l'administration pénitentiaire mooy directeur des affaires juridiques de planification des statistiques de l'administration pénitentiaire détournement jëm ci mbir mu mën a xajamal kaaraangeeg réew mi ba ñu leen waxee dañoo weddi tuuma waaye l'observateur nee nañu bi enquêteurs yi xoolee seeni téléphone portable ci la ñu ne ñoom ñaar partagé nañu documents yi ci seen whatsapp kan lañu ko yónnee ak lu tax ñu yónnee ko yéenekaay bi nee nañu loolee lépp ca kanamu gis ba ca lay leer libération xëyee moom it xibaar bi ci xëtu mu njëkk ba bind ne dig teg na loxo ñaari agent yuy liggéey ci administration bi lettre bi directeur administration pénitentiaire colonel Abdoulaye ñaar ñuy jàpp di Idrissa ñu génn fa te wax ci li mu njëkk journal Le Témoin mi ngi ñuy xibaar yi yóbbu woon mu jëmoon ci di sàkku ñu roofaat Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñu ko roppe woon teg ci partem bi ñu tas di Pastef ñu muulaat ko delloo ko boromam cour de justice bu CEDEAO nee na leen li mu ci dogal dina ko ajjuma fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre le mandat nañu ci yuure na ci kaw état bu Sénégal ba xolom sedd agent judiciaire de l'état bi maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi Ousmane yi ba ci juge Jérôme Traoré ku ci nekk ci ñoom say kàddu journal L'Info xëy nañu ko ndil ci xëtamu njëkk ba teg ci bindit ne état bu Sénégal jël na ku démb Walf Quotidien nañu avocat yi défendre état bu Sénégal dañoo mel ne bëgguñu yëf yi teel a jeex moo tax ñu bëgg ko yàggal di taaweeka lawlawal agent judiciaire de l'état bi yéenekaay bi nee wax na démb ci audience ba ne ngi ñuy fàttali ci xëtamu njëkk ne délibéré bi 17 novembre ci verdict beneen bu ñuy xaar ak bàyyi mi ne ci liste électorale yi élection présidentielle yi 2024 njiital AGPADS nee na kii wuutu Macky ci boppum réewum Sénégal dafa war doon ab président de la république buy dellu si confiance ci askan wi sagara ngi xeeñ ci njàng meek njàngale mi Sud Quotidien moo ñu ko wax ba di xamal ne syndicat jàngalekat yi di CUSEMS e ak SAEMS e ñoo woote journée école moxt ci talaatay tey ji ministère éducation nationale ne du ko dégg ndax syndicaliste yi bëgg a sooxeel njàng mi tey ci talaata ji li ñu wax teguñu ko fenn te bu ñu ko defee luñ ci góobe nañu ko gar vox populi nañu naruta yomb ne sayem suki sems contre ministère éducation nationale guerre totale ndax ñaari wàll yi ku ci nekk ci ñoom yaa nga màtt fa nga màtt ngank mu dëgër ne doo bàyyi li fekk daggul ñu bàyyi njàng mu digg dóomu ñu yi seen kàddu di sàkku ñu ubbi université yi ñu tëj keroog ba Modou Lo sëggale Ama Baldé di ko rokkasi kurpañ waa ji dagge woon ci làng gi tëb barrières yi dugg ci enceinte bi ñëw langaamu Modou Lo ngir mu dakkal kurpañ yi l'observateur mi ngi ñuy baaxe ay xibaar ci waa defoon loole waa ji jiili Karim lu tudd ñu gën koo xam ci turu Diaz nee na li mu def xamul sax lan moo ko ko def loo yëg-yëg moo tax mu def ko waaye bi mu ko defee toog réfléchir te la xamee ne def na lu ëpp ba tax mi ngi baalu àq ñëpp Ousmane Sonko ci wàllu wér-gu-yaramam la ca seenne woon enquête bañ ci doon amal dig teg na ca loxo euh, ñaar euh, ci ay gardien kaso daañ ci ñëw ak yéen ci kanam tuuti ciy leeral l'école beeg sooxe geneen gu nu ci euh, njort ak SAEMS CUSEMS yi dogal ba cëgu tey gi euh, daal di lank jàngale maanaam l'école bu ne selaw donte ay artu jib na tukkee ci ministre éducation xibaar yi bokk na ci mbëkk mi ak euh, li nga xamante ni mooy xayma gi daanaka 2023 di at miinu ne ñëw na roppi fuuf at ma fi roppi woon ba fii di 2016 ndax ci atum 2023 rek lim nu fanweer rek ñaari junniy doomu aadama yu teeri ci îles Canaries daanaka xaaj ba di doomi Sénégal juróomi téeméer fukk ak ñaar ca faatu lu ëpp juróom-ñaari junni yu ni ci teg loxo ci technique bi Aliou Ba. ñu waxtaanee mbiri senn gi dossier euh, wér gu yaramu seen Sonko sennoon as lëf ci wàlluy xibaar ñaari garde administration pénitentiaire euh, yu ni ci teg loxo waa DIC ñoo def lu ni mel muy directeur affaires juridiques ak planification euh, wàllu statistique naka noonu inspecteur bii di Idriss Sow ak adjudant Issa Ndion kenn ci ay collaborateur am bu nu sukkandikoo ci xibaaru yéeni kaay bu group Futur Média observateur yéeni kaay bi ne la tax yoon teg leen loxo bokk na ca lenn ci xibaar yu nu fekk ci seeni Euh, téléphone portable ca diwaanu Kolda moom fukk ak juróom-ñeenti million xaalis bu bon la ci wàllu faux billet ak it euh, jumtukaay yu ko daa defar na ko noonu it kilo bu yàmba ñu fekk ci ñu daan yëngu ci fànn woowe waaye ñoom it euh, seeni mbir gàntal na ndax teg nañ leen loxo leerali Abdoulaye Diallo. ay éléments yu brigade de recherche bu Kolda ñoo teg loxo ci ab groupe Samba Boy yi doon defar xaalis bu baaxul la fukk million ak juróom-ñeent mooy koppar yi ñu fekk ci seeni loxo leeral <clears throat> dafa am ñaari mbir yu nga xam ne nii dañ cee teg loxo bu njëkk bi mu ngi waral yàmbaa joo xam ne ni jàpp nañ ko ci benn bërëb waaye lu ci ëpp solo mooy faux billets yu nga xam ne ni fekk nañ ko fa jàpp nañ fa lu am solo lu jëm ci ay billets noirs bu ñu ci dix neuf millions mais également xaalis bu nga xam ne nii xaalis bu baax la boobu mu toll ci un million sept cent quatre vingt mille francs ak lu nga xam ne ni également moom lañ fas yéene woon jëfandikoo pour jéem a def lu ñu naan falsification de billets de banque maanaam jël sum xaalis réew mi boole ci loo xam ne ni bokk ci. ab doomu Guinée Conakry moo jiite woon bi le groupe Samba Boy yi. am na ci koo xam ne nii Guinée la dëkk Guinée Conakry ñeneen ñi Sénégal ñaar ñi peut-être ñu ngi résidé Kolda mais am na ci koo xam ne xam ne nii dañ ko jàpp bañ koy jàpp ñu ngi ko jàppee wetu hôtel Le Relais bañ koo xam ne nii ñaaw nañ njort ci moom ñu téye ko kooku turam bu nga xam ne ni da koy wuyoo Batman lañ koy wax bañ ko jàppee ñu forcé ko laaj ko laaj ko laaj ko ba mu tontu ñu fas yéene ànd ak ñun ci benn apartement meublé bu nga xam ne nii ñeent ñu nga xam ne ni ñoom la bokkal mbir mi ñu nga fa toog. kon daa doon Carrefour yoon yu bari yi jëm ca ay réew yu dënd ak Sénégal commissaire Lat Dior Sall mooy ñaax askan wi ndax ñu gën a lëkkaloo ak waay karange gi ngir ñoom ñu mën a doxal seeni liggéey ni mu waree RFM Kolda Abdoulaye Diallo. jërëjëf Abdoulaye ñu waxtaanee njàng mi ak cooxe gunu ci njort talaata tey jii euh, lëngoog waa SAEMS sem CUSEMS fas yéene daal di dogal euh, ak ñàkk jàngale ci gàttal maanaam l'école bu ne selaw boycotté kuur ya décrété bëccëgu école morte juróom-ñaari fan euh, ci weeru novembre di bëccëgu talaata tey jii lay donte am na atu yu tukkee ci ministre bi ñu dénk wàllu njàng mi dañu ciy teewlu secretaire général SAEMS ci jokkoom ak Georges Déthié Diop Malick Youm la. déglu nañ bataaxal bi nga xam ne moo tukkee ci nguuru Sénégal muy ab tontu bu ñu bëggoon a indi ñun ci taxawaay bi ñu am ñun waa SAEMS ak CUSEMS di woo jàngalekatu Sénégal ci bës bi nga xam ne mooy talaata juróom-ñaari fan ci weeru novembre ñëw toog ñun ñëpp bank suñu ay yoxo duñu fas xànc ak morom ma ngir fàttali leen ñoom ne am na lu ñu dige woon ak jàngalekat yi am na lu ñu dige woon ak sendikaay loo xam ne ba léegi dafa sooxe jëm ci wàllu soppi nekkinu décisionnaire yi tàmbalee tàggat gi nga xam ne nii dafa tàggatémbe fële ca Fastef ak tamit poñ yu am solo bokk ci loolu tey tàggat geneen gu war a am fële ca CNEPS de Thiès ak ñu ful bor yi ñu fara fay ñii nga xam ne mooy jàngalekat yi ak tamit ñu yokk li nga xam ne mooy budget école yi nga xam ne ñoom ñoom dañ ko daggoon boo boolee loolu yëpp donc dañu jàpp ne nguuru Sénégal ci loolu la waroon indi ay tontu waaye ay xuppaate ak di wax ne daañu maanaam euh, noot jàngalekat yi du loolu lañ doon xaar ci ñoom te loolu amul genn solo guñ ko amal ñun ndax jàpp nañ ne tey si boppam sax la ñuy profité ci lii pour woo jàngalekat yëpp ñu taxaw temm ba bës boobu suba ñëpp respecté ko ndax ñu xam ne lépp li nga xam ne moom la ñuy xaar ci nguur gi mooy mu matal jéego yooyu mu matal déggoo yi ñu xaati moon ngir ñu mën a am gën di école te lépp leneen lu mu def tamit bu boobaa bu fi safaan yu amee ñu jàpp ne ñoom si seen responsabilité lay doon kon ñun def nañ li ñu waroon def mooy déposer nañ préavis teg si tamit respecté woon nañu délai bi ñu ànd bi yoon ak euh, waa université Amadou Mokhtar Mbow euh, coordination bu SAES e euh, ba fare foofee di syndicat ñoom nag doon janoog taskatu xibaar yi altine démb jile lañu bëgg rek bokk na ci ñu yokk budget bi nu baaxee daara ju kawe joojee Amadou Mokhtar Mbow euh, jël fa it jàngalekat yu doy ci yeggale son ci ñaareelu phase ba syndicaliste yi sàkku it ñu ubbi daara yi daara yi nga xamante ni ñooy yu kawe yi wekku ci nguur gi ca it sécuriser ko maanaam euh, wërngal kooku kaaraange Serigne Fallou Pouy lañ ci àndal mooy coordinateur bu SAES UAM ñu teewlu kook Abdou Diouf Diagne. ay décision ay politique yoo xam ne dañuy nekk quatre quatre murs décider li ñuy décider. donc bëgg donc euh, daal jël ci ay décision ci loo xam ne pédagogie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 yu bu kawe ci daara yi daara yu kaw yi boo jëlee université Amadou Mahtar Mbow ñu ngi jëm ci gën a màggal université bi ci effectif mais loolu dafa war a am mesure d'accompagnement war nañoo gunge université bi ci yokk budget bi mais aussi ñu mën a yokk également ñi fiy jàngale ak ñi nga xam ne di jàpp ci administration bi ak lépp lu jëm ci service technique muy parti yi war nañu également donc jéem a yeggale phase 2 parce que université naam am na lu ñu livré mooy ci locaux yi nekk am na phase 2 bu ngeen xoolee à ak si ginnaaw phase 2 boobu bëgg nañ aussi ñu ñu yeggale ko. RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. RFM rajo askan wi. tukki mi ci anam yu dëppwul ak yoon ak lim bi jéggi dayo eh, ci ñetteer yi ca Espagne ci misaal bu nu ko méngaleeg atum 2006 bi gàddu woon ba fi record bi eh, ren nag eh, daanaka daal dina ko ful ay yooni yoon ndax fanweer ak ñaari junni ci doomu aadama yu teeri ci îles Canaries daanaka xaaj ba di doomu Sénégal juróomi téeméer ak fukk ak ñaar yu ca faatu ci yoon yi juróom-ñaari junni yu ni ca teg loxo ci kaso yi Makumba Bey recordu 2006 ba ci weekend bi la daanu ñi ngi ëppoon fanweer ak benn ciy junneeg juróom benn téeméeri nit yoo xamante ne nii jaaroon nañ ci ay gaal yegg îles Canaries week-end bii ñu génn ci la kilifay Espagne yi wax ni bi ñu wàññee mat na fanweeri junneeg ñaar yoo xamante ne nii àggaat nañ ci îles Canaries yooyu janvier ak tey îles Canaries juróom-ñaari île la yoo xamante ne ci Espagne la bokk waaye ñoom ñoo gën a jege Afrique boo jaaree ci woowu yoon El Hierro mooy bi ci gën a nag Afrique foofee daal dinañ fay gàttandu ci week bi juróom-ñaari téeméeri nit ak ñeent fukk loolu nag moo tax nag limub ren bi ëpp limub ba nit ak fukk ak ñaar daal di nañuy faatu ci tukki boobu ñuy tukki nga xam ni junniy kilomètre ak juróom-benn la ci biir géej gi lu ëpp genn wàll gi nag ci fanweer ak ñaari junniy nit ñi nga xam ni dem nañ foofee ca île Canaria Sénégal lañ jóge li ci des jóge ko Gambie Mauritanie di Gànnaar ak Maroc pexe yi ñu tegoon nag ngir xeex mbëkk moomu tax na ba juróom-ñaari junniy nit ak téeméer ren ji mujj ñu mën a dem ñu fanq seeni pexe di loo xam ne Sénégal ak Espagne ñoo ci ànd ndax waa Espagne am nañ fii ci réewum Sénégal lu toll ci ñeent fukki policier ak ñeenti gaal ak benn hélicoptère boo xam ñooy niit juróomi téeméeri kilomètre yu sa ci géej gi bi weeru juillet wi di dee Sénégal defaroon na benn stratégie di pexe mu muy xeexe yëf yi keroog bañ koy valider le premier ministre Amadou Ba waxoon ni xew-xew bi bëri na doole joo xamante ne nii li muy faat war naa tax ñëpp ànd di ko xeex waaye xeex boobee mel na ni ndam amu ci ndax ñetti weer gannaaw stratégie boobu ci benn bis képp di 5 octobre juróomi téeméeri nit yeggandoo nañ ci benn bis foofee ca Îles Canaries di lu musul woon am jërëjëf Makumba ci xeex bi ñu bañ a tàyyi ndax wan gune yi ne daanaka gars yi dañ leen di sànq rek ñu bari ci ñoom leen di fexe yóbbu bitim réew euh, di leen wërloo géej geek euh, misaal gi euh, digg la yóbbu Espagne wala fu mel ni Italie nga teeree gàddaay gi ca géejewaay xam nga loolu métti na ci ñoom daanaka lu jege ñetti téeméeri candidat ci wàllu tukki mi ci anam yi ak yoon am na ci ñett ñu faatu police bu waxi naan nimzaat gàddu dossier bi Oumar Mbow bile ngelaw bu fort ca plage bu gàddaay fees dell di xool lu xew ñoom ñëpp nag yéemu ci bile gaal bi nga xamante ni guddaay bi war na toll ci fukki ak juróomi meetar te mu yeboon lu toll ci ñetti téeméeri nit yilee candidat nekkoon ci bile gaal nag doon dem Espagne jaarale ko ci géej gi waaye daal ci mujjanteel ga ay jigéen ak ay góor lañu fekk ñuy jaay jën ca plage bu Gàddaaya waa polis ak waa sapeur pompier daal di ñëw ci nu mu gën a gaawee ci bërëb bi ngir rek daal di sowe ñenn ñi nga xamante ni dañoo bokkoon ci immigration irrégulière bi waaye daal terewul la ñetti nit faatu ci mu doon ñaari jigéen ak benn xale bu góor ñu ngi ñuy xamal itam am na ñu bëri ñu des ci géej gi xamuñu ba léegi ñaata lañ di xamle ba léegi suñu source policière bi bi ñu sukkandikoo nag ci ki ñu doon waxal Bargny la jóge bokk ci département bu Rufisque te samedi ci guddi la fa jóge woon na mu def kon ñetti bés ci géej gi te génnul Sénégal ñi nekkoon ci bilee gaal nag te doon dem Espagne am na ci ay doomu Guinée yu bari ay doomu Mali yu bari akit ay doomu Sénégal waaye seeni lim ñoom taxu ko tàkku noonu ñi nga xamante ni nag ñoom mucc nañu ci mbir mi daal dinañ leen yóbbu ca police bu waaxi naan Nimzaat li waral bi légal nag teer ca plage bu gàddaay ba léegi kenn xamu ko jërëjëf euh, Seydina Oumar aslëf ci politique ak mandataire Ousmane Sonko Ayib Daffé mi demoon démb ci Sénat ba euh, mujjul daje nag ak membre yu bees yi fa terewul muy wéy di am yaakaar mu ne euh, ñii ñëw bees bañ a soppar ñi ci dara taxawaay ga woon gu ku ci mel ni du Ndiikh ak équipe am ba woon ci wàllu dugalaat gi ñeel Ousmane Sonko ci liste électorale yi ñu ne Ami Ngom gannaaw DGE Ayib Daffé mu ngi woon ca Sénat muy commission gi saytu wàllum wote yi foofee sax la xamle ni am na ab njort ni Sénat du soppeeku ci dogal gi mu jël su fekkente ni respecté na code électoral bi. waaw xam nga administ ak nu mu munti demee administration daa war a continuer di fonctionner. tey ñoo nekk ci biir processus électoral parce que élection yi démarré nañ. institution buy mel ni Sénat liggéeyam taxaw donc ñu fi ne ñoom dañuy continuer dossier yi fi bàyyi le temps ñu bees bi ah installé wu loolu mooy administration donc moo tax ñun euh, loolu tiitaluñu loolu jaaxaluñu. moom mandataire bu Ousmane Sonko xelam dalul ci ñu ñu tàbb yees ca Sénat Ayib Daffé jàpp ne ñenn ci ñooñee dañoo tëddeewul njaaxaanaay. koo xam ne da ngay bokk commission électorale nationale autonome da ngay tëddee njaaxaanaay day fekk koo xam ne musoo far fenn musuñu la xamee ci parti politique musuñu la xamee ci mouvement mais ñooñu ñu gis noonu ñu Macky Sall nommé ñeen ñi ay xaritam nañu ñeen ñi ay jege ñaaleem nañu ñoo xam ne ci wàllum politique su fekkente ni amuñu seen i bëgg-bëgg moom mandataire bu parti PASTEF bi ñu tas di xamle ni dina dajale kujje gi ngir ñu xeex ba am li ñu bëgg xeex wi nag dinañ ci dem ba mu jeex rawatina ci wàllum politique ak ci wàllum yoon ci wàllu euh, parabasket bi ñoom ñu ngi kaas ba léegi di ñaxtu la ñu bëgg mooy njiitu réew mi dalal leen ndax dañu gis ne dañu am médaille de bronze te ba léegi kenn faalo leen ci yooyu les jeux te yeeloo nañu ñoom itam ñu jox leen seen cër ci réew mi seen ndaje matasutu xabaar yi xuja jàmm moo ko teewee gaynde yu para basket yi li ñu bëgg moo di njiitu réew mi dalal leen ah, ginnaaw bi ñu ràññeekoo ca jeux paralympiques africains yi ñu weesu Baye Ndari Dieye moo yore seen kàddu première fois ñu dem coupe d'Afrique mu jëlee fa place ku ne xam na ne surmee yi tamit Égypte leen door troisième place ñun tamit Égypte leen door troisième place ku ci nekk médaille de bronze nga indi mu recevoir leen te recevoirul parasport loolu lañ koy ñaan moom it mu recevoir ne ñu ngi koy dund ko Gana yëpp rayante nan ba fexe ba indi fi médaille ku ne xam ne ne andi sport ñeenti équipe ñoo ko ngonkoon ca Afrique donc fexe nan ba dugg ci carré boobu jël nekk fa troisième te c'était la première fois ñoom ñi amoon raaya ci kan bi mujjoon a am ci Accra daal dinañu delloo njukkal seen naataango yi tëxlu ñoom ñi ñu dalaloon ca Palais ba ginnaaw bi ñu wanee seen bopp jël ñetteelu place ci mondial football Ligue 1 Sénégal démb jongante bu doxoon diggante Génération Foot ak Gorée amul ndax waa Génération Foot dañoo lànk ni duñu dem fubali ca Thiès ndax dañoo euh, nanguwut dogalu waa fédération ak waa ligue professionnelle ni seen terrain ba ca Déni Biram Ndaw mënu duñu fa amal ay jongante tey jongante dina am diggante Wakaam ak Tëngéej euh, loolu nag ci ngoon si nekk si wàllu Ligue des champions moom euh, jàpp nag ni Porto mooy joué ak waa Royal Antip équipe bu étoile rouge de Belgrade mooy joué ak waa Leipzig Young Boys de Berne ak waa Manchester City Milan AC mooy dalal euh, Paris Saint-Germain c'est Italie Dortmund mooy jongante ak waa Newcastle Lazio mooy joué ak waa Feyenoord de Rotterdam Glasgow Rangers moom dafay joué ak waa Atlético de Madrid. jërëjëf Malal ñu lay masawu baat beeg làmb ji xam naa ba tey. foog mu dem wuti jinjeer ju bëri naan ko. <laughs> waaw jinjeer donc wala ci xorom pool loo xam rek ci wàllu pajum wolof bi.